njëkk wax rek mooy euh, li euh, monsieur Seydi Gassama doon wax par rapport aux activistes yi nga xam ni dañ leen bëgg a comme ay samba boy comme ay inconscient comme ñu amul liggéey comme ñu bëggul dara et cetera parce que li ñu fi dajale def naa euh, wax nañ ci dans le détail très amplement mais man damay rendre hommage à ces jeunes la de de Nitu Dëgg Valeur à tous les jeunes que je qualifie de jeunesse consciente parce que bu fekkee ni bu fekkoon ni ndaw yu mel nii la ñu amoon depuis 88 Sénégal dépassé na fi parce que lan moo nekk à l'origine de leur arrestation puis de leur torture benn projet de loi boo xam ne député yu nekk assemblée nationale yu opposition bi ñu bëri yëguñu ko décret de présentation bi président Macky Sall mu ko bind le 15 juin ñu nëbb ko le mardi la jàll commission des loi kenn yëgul le jeudi ñun ñii lañ ko yëg le jeudi député yi def conférence le jeudi la loi devait être votée le lendemain vingt quatre heures de temps cette jeunesse là qui est très consciente appréhender les enjeux et la gravité de l'événement la gravité de l'heure en vingt quatre heures procédure d'urgence dëkk bi kenn mënu la wax avec précision les agrégés en droit les les les grands cadres ñu bëri ñu ngi naan loi bi c'est quoi la quintessence xamuñu ko mais ndaw yi rey teel nañu décrypter le danger teel nañu décrypter message bi ba jóg en bouclier parce qu'on s'est réunis parce qu'on n'avait pas de temps comme ñoom procédure d'urgence la ñu nekkoon ñun tamit ñu nekk mode procédure d'urgence parce qu'on a tenu deux conférences de presse le même jeudi benn bi c'est les députés euh, de l'opposition Euh, élargie euh, à toutes les forces ñoo ko tenir à la suite de ça ñu def une réunion dans la salle décider defaat une seconde conférence de presse dans la nuit parce que nous n'avions pas le temps la loi devait passer le lendemain ces jeunes conscients là alors que ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen di jeter en pâture ñu ngi dans leur salon xam ñu riir ci lu géej gi di riir ñii de séance tenante la ñu bañ a xaar ni dañuy dem nuitamment euh, devant les grilles de l'Assemblée nationale pour, pour créer le déclic, pour porter un message comme quoi le peuple n'est pas en phase avec cette loi. Kon ñii on leur doit respect. Activisme, c'est pas péjoratif, ça doit pas être péjoratif ici. C'est c'est c'est c'est c'est c'est la, c'est la pointe de lance de la jeunesse consciente. Parce que réactivité boobu musuñu ko am sax ci homme politique bi. Une loi entre jeudi et vendredi. ñu jël tout toute disposition yoo xam ne à chaud et et dans le feu de l'action lañ ko jël ba li ñu ciy fekk yëpp fekk nañ ci ñun ñu nelawuñu cette nuit la ñoom Dame Mbodj ñoom Mansour on était euh, Sora tu toute la nuit on était sur la brèche parce que on a réagi en temps réel donc cette jeunesse là mérite tout notre respect mais saluer aussi discernement bi cette jeunesse am parce que Abdou Karim bi mu jëlee parole euh, jetewul en pâture la police parce que ñoom yàgg nañ leen arrêté mais mosuñu am euh, euh, euh, problème bu mel ni ci seen temps d'activisme yépp donc ñoom dañu joxoñ baaraam un certain Serigne fay et d'autres élèves de la police ñi nga xam ni ñoom ñooy def la sale besogne mais la police en général et la gendarmerie nos forces de défense et de sécurité sont des nationalistes et c'est des gens généralement très bien formés kon lii ay exception la ay gangrène la yu nekk seen biir yoo xam ne dañ leen war a extirper en en en en en les sanctionnant de façon exemplaire mais malheureusement comme l'a dit gi ces gens sont toujours couverts par le régime en place léegi nag ci lan la ñu warut dem mooy ci li xale yi wax nit def lu ni fang yoon deful liggéeyam loolu y a la loi sur la protection des données personnelles yooyu yëpp ay dispositions yu existé ba pare la président Macky Sall di ko jël di ko soppi comme la loi vingt 29 bi nga xam ne dafa dafa prévoir état d'urgence ak état de siège moom mu prévoir ci beneen troisième régime téyel ko boppam pour téye armée ak police ak gendarmerie kon président boobu dafa bëgg installé Sénégal dans le chaos léegi nag li ñu dul nangu euh, mooy ñu ñuy menacer menaces yi mu ngi commencé ci président ñiy kàcc kàcc nekk seen gannaaw ordinateur parce que y a cette loi qui criminalise les délits sur les euh, réseaux sociaux nañu dem ba ci kanam donc quand on a vu cette loi ci kanam boobu nekk te sorewul woon sax di menacer ni li fi amoon du fi amaat ça veut dire que defaru nañu on est plus fort c'est-à-dire moom ñun la war a jaamu ñun la war a liggéeyal mais ñun lay menacer léegi nag son porte-parole ci loolu un gars qui n'est ni ministre de l'intérieur ni ministre de la je vous nomme Mambey Niang à sa à la suite du président moom mooy ñëw di ñu menacer li ñu dal ñoom Abdou Karim il avait annoncé la couleur ce jour-là euh, c'est-à-dire euh, le le le le vendredi matin ni ku fi manifester dina xam ku wet dina manifester ça moi personnellement je le prends comme une menace xaw ma yéen ngeen ko jëlee c'est une menace et ça vient de qui de celui ki nga xam ni moom moo recruter les nervis qu'on appelle les marrons du feu moom mi nga xam ne ku yëngu mu porté ko plainte je l'accuse publiquement moom ak Pape Gorgui Ndong d'être les sergents recruteurs de ce qu'on appelle les marrons du feu les nervis yi nga xam ne ñu ngi leen di gis guddeeg bëccëg ñuy agresser les populations ci seen àq ak seen yelleef di agresser même ay jigéen di dugg ci ay domicile quoique domicile euh, euh, privé c'est sacré di déggënee ay nit di leen arrêter dem nañu bay jël bay bay utiliser ay lacrymogènes ak ay FLG fusil fusil lance grenade te solo gu ñu tenue te ñu ngi leen bëgg a incorporer gendarmerie ak police sa a été à à l'origine de grincement de dents au sommet du commandement coow laa foofu ba léegi kon président Macky Sall fi mu jëm ak ñun xeex la wax nañu ko clairement leer na nañ Mbaye Niang menacé nañu clairement man je dis publiquement ici en l'assumant les marrons du feu yi nga xam ni ñoom ñoo leen recruter ces nervis là bes bu ñu agresser les populations les populations vont riposter et le peuple sera protégé qu'on ne se méprenne pas sur nos propos le peuple sera protégé en cas d'agression de ces nervis te bu boobaa la riposte n'épargnera pas et commencera même par les commanditaires que sont Mame Mbaye et Pape Gorgui parce que président Macky Sall daf ko cautionné sax moom mi ko doon dakkantelee euh, euh, alerte euh, protection riposte naan APR comme leur parti kon moom il cautionne ça au point de vouloir les incorporer dans les forces de l'ordre imaginez leen Sénégal fan la jëm un pays démocratique ñun ñii lan lañ doon kaas loi bi ñu retiré ko parce que c'est liberticide daf ñu atteindre suñu liberté rawatina bu fekkee ni mën na may juge bi mu déglu téléphone ku ko neex parce que daf ko soupçonné pendant quatre mois renouvelable sans dire combien de fois mën nañu am accès suñu galerie suñu messagerie suñu mail suñu Facebook sans ñun ñu yëg ko juge moo koy décider rek dans son intimité ñu appliquer ko quatre mois léegi dañuy jël say données personnelles utiliser ko contre yow ni la terroriste nga wala et cetera te les données personnelles ont été protégées donc quintessence loi boobu le jeune yii ñuy jeter en pâture euh, teel a comprendre ba mu jaral leen ñu taxaw di xeex ak Sénégal kon Sénégal daf leen ameel njukkal daf leen ameel euh, euh, reconnaissance kon nañ leen nañ leen respecte loolu mooy mooy mooy li ma li ma li ma bëggoon wax euh, très rapidement ci cas bi ñu indi fii euh, gii fàtte na ni bi ñu nekkee au commissariat gii oui kii amoon loxo bi laa qu'est-ce qu'il avait au bras dañ ko doon fëggal guddi gi ci dormé dafa am koo xam ni dañu damm loxo bi fii 4 heures du matin lañ ko doog a doog a évacuer hôpital xaw ma 5 heures du matin. il est resté la journée muy yooxu foofu te ku góor yàlla la mais douleur c'était intenable donc violence policière yooyu day am tout le temps parce que loolu moo moo ñu moo ñu dajale fii mais bu fekkee ne lu ñu institutionnaliser la dafay lourd de danger te man li may wax xam naa ko loi sur le terrorisme c'est déjà prévu yàgg na am na li ñuy li ñuy bees li yëpp lu am la woon ba pare. bu fekkee ni dañu bëgg a lancer message aux Sénégalais comme quoi yéen ñu ngi leen di tëkku ku manifester di nga xam ñu commencé indi violence policière ci kaw ay manifestants yoo xam ne dañu leen crier sur le volet parce que Abdou Karim bi ko collègue am yi protégé des coups parce que dafa feebal et puis et puis mais Sénégal yëpp xam nañu Abdou Karim il a subi plusieurs opérations il a été évacué en Allemagne loolu ça fait euh, on en a fait chou gras dans ñëpp xam nañ ko donc police nga xam ni c'est le cœur xam na ko naka nga mën a exercer violence ci kooku donc ñi ko doon protéger ba tëdd ci koom ba ñoom seen seen seen seen euh, euh, supplice bi jeex bi ñu jógee ñu laaj ko turam euh, ñu comprendre ni qu'il avait échappé à ses à ses à ses coups et blessures ses coups et blessures volontaires bi ñu xam ni léegi dañ assimiler assimilé ak terrorisme kon ñan ñooy terroristes yi ñan ñooy terroristes yi terroristes yi mooy ñi nga xam ni dañuy jël ay ay ay ndaw di leen di leen di leen wàccee ci kow nit ñi ñuy dal seen kaw boo gisee ma jël sama responsabilité à l'endroit de Mame Mbaye Niang et de Pape Gorgui Ndong parce que procureur mu ngi gis ministre de la justice mu ngi gis gendarmerie police mu ngi gis tout le monde voit les nervis ils sont identifiés ñu ngi publier seen ay identité kon bu leen dara bu leen ci dara fekkul c'est à nous de nous organiser pour ne pas euh, subir les préjudices de cet ordre de malfaiteurs yi nga xam ne dañu am la caution de l'État ñu euh, euh, tenir gendarmerie ak police euh, euh, en respect ba mënuñu mënuñu mais on a vu même ci ci ci couvre yi ñuy def ay checkpoint di vérifier nit ñi circuler di yore ay yëpp di dóoraate ñooñu boo leen solo les tenues jox leen jox ay véhicules blindés jox leen arme mais on est fini donc président Macky Sall il cherche à semer le chaos dans ce pays parce que il veut se maintenir illégalement au pouvoir et il ne peut le faire autrement que par la force et par la violence kon sénégalaises et sénégalais tenons-nous prêts à la résistance parce que suñu kaw la ñu jëm et on nous l'indique Mambay Niang nous a menacés, le président nous a menacés et, et, et, et les violences ont commencé.